asalaamaaleykum euh, mbokku internetu euh, lii di Wassare Sport ak euh, lii di Dakar Midi tey jii ñu ngi waat fii ci monument de la renaissance mu nekk fan zone ba nga xam ne sunu confrère yi di RTS ñoo ko organisé fii ci monument de la renaissance. ñu dundoon ak yéen lii di premier match bi contre Zimbabwe ñu nar leen kaa dundalaat contre kii di la Guinée. tey mu nekk suñu deuxième match match deuxième sortie ginnaaw bi ñu amee victoire contre Zimbabwe si ultime minute yi nga xam ne euh, contre Zimbabwe metti woon na lool lool lool mais terewul lii di euh, euh, Zoro Aliou Cissé yi remporté nañ la victoire si dernière minute bi ginnaaw bi penalty duggee te Sadio Mané dóor ko tey jii ñu nar a dund ak yéen tamit euh, lii di suñu deuxième match si poule Coupe d'Afrique euh, des Nations 2021 fële ca Cameroun waaw euh, noonu lañ koy dundee ak yéen tey nag mu nekk match bu bu culminant ndax lii di la Guinée lañ koy sekkal la Guinée nekk suñu suñuy mbokk suñuy voisin ouest africaine ñoom ñu am premier match première victoire ñoom tamit Euh, contre Malawi dóor Malawi 1-0 am 3 points comme ñun am 3 points ñoo bokk euh, même score un 0 1-0 tey nag mu nekk match bu nar a métti match ba nga xam ne wax dëgg neex yàlla war nañoo góorgóorlu góorgóorluwaat euh, dóor leen mën a confirmer lii di sunu leadership confirmer lii di sunu favori si Coupe d'Afrique bi mën a qualifier si huitième finale bi si jàmm ak salaam mais match boobu noonu dafa am. ay absent yu bëri si match boobu noonu dafa am ay absent yu mm-hmm. euh, doy waar absent ya nga xam ne tey jii nii euh, dinañ handicapé bu baax a baax lii di nga xam ne mooy équipe nationale muy Kalidou Koulibaly ginnaaw bi nga xam ne amoon na Covid 19 football premier match nawul football tey tamit euh, ak kii di nu mu tuddati Fodé Ballo Touré Idrissa Gana Gueye ak euh, ñen ak euh, nga xam ne ñoom tamit am nañ Covid 19 naaw ñoo fubal si match bi mun na nekk match bu bu bu bu bëri manquant si côté l' équipe du Sénégal moom na leen jox compo probable tey. Euh, waaw compo yi compo yi nga xam ne génn na mooy Seny Dieng bi nga xam ne gol woon na premier match bi Alfred Gomis xam nga ni dafa am Covid 19 Abdou Diallo Pape Abdou Cissé. Saliou Ciss Ibrahima Mbaye Cheikhou Kouyaté ak Loum jaay ak Mame Baba Thiam ak kii di Bouna Sarr ak Sadio Mané ak Boulaye Dia ñoo nar a tey jii nii participer si match bi nga xam ne nan nañ ko euh, joué euh, ñii di laa Guinée waaw dinañ fàttali bu baax a baax rek euh, Sénégal gagné woon na Zimbabwe 1-0 kii di tamit laa Guinée gagné woon na Guinée Conakry gagné woon na kii di Malawi seen premier match 1-0 ku nekk am 3 points mu nekk match bu am important match ba nga xam ne tey jiini ku si gagné dina la leer na di nga football lii di huitième de finale yi ñu naan kaa dund ak sport ak lii di Dakar Midi jaajëf. Yo, boy, you Hey, hey, hey. lọ́mọ́ta lọ́mọ́ta yé bàbá lọ́mọ́ta yé lọ́sọ̀rọ̀. Àwọn yàrá àyà jíjó. Let's go, let's go. sant bi. bon Ablaye la laa tudd maa ngi dëkk Kër Massar bon ñu que ne c' est un match qui sera un derby de l'ouest parce que derby un derby n'est jamais facile parce que bien vrai que sur les papiers le Sénégal est le favori mais bon sur le terrain xam nga c' est la preuve qui décide aussi bon ñu ngi ñaan yàlla avant tout suñu gaynde yi ñu am dam bon na def daal preuve de réalité maximum de concentration comme ni leen président Macky Sall doon waxee rek dem ba jeex. quelle que soit la situation. Jusqu'à la 97e minute, on doit marquer et on doit concentrer. Cette compétition, je dois jouer chaque match, match par match, match par match jusqu'à la finale. benn équipe ndawatul Afrique bi benn équipe ndawatul ñëpp a mën football vu que ne Europe bi rek doon nañu exemple France faisait partie des favoris et il est éliminé en quart de finale je pense ou bien à huitième de finale kon donc nous sommes les favoris de cette compétition sur les papiers Mais bon, sur les papiers, ça reste encore les favoris parce que Sénégal, zéro trophée. Deux finales Cannes, deux finales perdues. Bon, dañuy sant yàlla peut-être c'est un destin. ñoo ngi ñaan yàlla que cette fois-ci ce sera le meilleur quoi. loolu bi Sénégal joué euh, premier match bi après gis ngeen ni difficilement la mujjee gagné penalty la euh, Sadio Mané mujjee dugale euh, supporters yu bëri xaw a réticent maanaam xaw a ñàkk a wóolu équipe nationale bi noonu loolu lan nga ko. waaw bon premier match moom début bi moom n'est jamais facile parce que tamit ñoo xam ne ils ne sont pas regroupés même pas dix jours quinze jours pour nga defar leen day xaw a métti mais bon seuls les trois points comptent ak noo ko mën a amee baax na man lu may lu may wax souvent rek bu doon zéro virgule cinq bii sax am na ce qui est l'essentiel c'est que nañ yóbbu trois points parce que trois points yooyu valeur la boo xam ne bon. dimbale nañu si avantage si si si si tournoi bi quoi. cas de Covid nan nga ko dundee parce que tey jii nii Idrissa Gana du fubal Fodé ballo du fubal Edouard Mendy du ñu bëri duñ fubal ñoo nar am manquant yi bëri lan dundee lool noonu. bon oh, man vraiment vraiment ça m'étonne beaucoup. parce que vu qu'on est Cameroun da ngay xool ñoo ce sont les pays organisateurs avec zéro cas Covid gis nga pas étonné de ces cas mais dañuy dem ba quart de finale demi finale on y dira que ne Sadio Mané est Covid Sadio Mané sera Covid. Covid 19 dafa am lu laxasu. non dafa politiquement c' faux. parce que Cameroun mënuñu comprendre Cameroun zéro cas Covid 19. Sénégal tey dañuy dem quart final demi final ñu ne Sadio Mané Covid fii la ñuy toog di parce que Sadio Mané le leader de notre attaque. pour l' instant on peut dire que les Gana Gueye yi xam nga les Kalidou Koulibaly sont Covid Kalidou Koulibaly hier on a refusé de le tester pour quelle raison. on doit le tester comme tout le monde mais c'est la c'est la norme ñun Afrique nañuy nañuy bañ di tuutal suñu bopp soo gisee li amul woon si Europe mais ñun à tout moment que ñun dañuy jéem a wàccee suñu bopp dañuy jéem a def suñu bopp ay dof alors que c'est pas le cas. lan bon ce sera un match très très très très difficile même mais que ne j'ai confiance au Lions da leen ñaanal yàlla yàlla may leen ndam xam nga am naa yaakaar bu baax ne bon on va gagner par deux buts à un. yàlla yàlla sant bi. ah Mamadou Diop. tey loo gisee équipe nationale waaw équipe nationale waaw xanaa war a gagner rek ah war parce que ça fait longtemps boo xoolee tamit équipe nationale bu Sénégal gëj na dugg si compétition comme tey Zarou Kani nii di gagner équipe bu mag. parce que soo xoolee bii passé dañoo dóor suñu premier match mais deuxième match ba ñu amee Algérie daf ñu gagner te instant yi nga war tiital yenn équipe parce que yow da nga ñëw doon favori gars yi di la sóoraale bu baax. nekk première mondial première mondial nekk vingt non nekk Afrique mais nekk vingtième mondial ah. yow yaay benn équipe boo xam ne yow yaa nekk Afrique bokk vingtième nekk mondial quoi newul lu yomb boo ñëwee fi da nga war a marqué sa empreinte tax yeneen yeneen équipe yi sóoraale Sénégal favori bu ñu di xool dañ ko war wane si terrain bi bu baax ñun ne depuis lors dañoo sonn baay mooy loolu équipe nationale ren dañ ci war a jàpp indil ñu coupe bi Sénégalais ni ngi nii kenn nelawatul kenn yàndaru ñun kaan bu ñëwee suñu fiti dem suñu fit waay lépp parce que wóor na ma tey ndékki non ndékki wuñu ñun mënuñ amuñu lu dul Sénégal ah. amuñu leen amuñu lu dul waaw te équipe bi na xoolal yàlla mën na def xam nga sutura waaw ñu ñu ren coupe bi ñëw quoi. lan wax ñi wax ne Covid bi daa am lu ci laxas. waaye cas de Covid waaye loolu war nañ ci wax. sa gànn géej loolu dafay yomb. parce que boo xoolee ay Côte d'Ivoire seen effectif man di bi ba mu leen seetaanee gis deuxième mi-temps ay Zaha dugg ay ay Nicolas Pepe mais mais dafa ma jaaxle mais léegi ñun. da ngay ñëw rocc benn gaane gay tey nga dencal ñu kii Gomis mi ngi ni Koulibaly xam nga waaye mais ñun non non. ak Edouard mi eh, a wax ak ñoom xam nga suñu médecins yi tamit bu nekkee Sénégal xam nga da ngay débloqué ay médecins yu yóbbu bu ñu defee test bu nekkee kaaf ak indi wala genre après sénégalais ñun suñu médecins yi tamit dañu dañu war a consulter wax exemple quoi comme gis nga tey kaaw Ismaïla Sarr nee nañ daa blessé mais teewul ñëw na ba Sénégal suñu médecin xool ko ba mën ko téye loolu tamit dafa war a mën a demee noonu waaye ñun ñemuñu kaan bi ngir fooree nañ ñuy jox suñu joueur baay ñun ñu dugal leen ñu waaw ñu wane lu ñu mënee carrément waaye ñu un un bon jour xëy nañu tey Gana Gueye mooy loolu baay ñu newuñu si yooyu. Gana Gueye Guinée di naan Sénégal amuñu xamuñu dara amuñu équipe. Guinée ñun ak ñoom bokkuñu objectif day waxante dëgg non Guinée am na yoo xam day dem pour participer ñun lu dul coupe nii final sax doyatuñu ñun coupe non bokkuñu dañuy ñëw pour mottali. bokkuñu sax te match yi bu dawee léegi nga xam ko. kom bu ma ko defoon 2006 laa koy defaat dégg nga su ko neexee sax ma may ko un non non may ko un nil gañ sax garaawul bu nii nee sax na gañee waaw. sant bi. Binta Sow Binta Sow. waa supporter équipe nationale. Mhm. tey mën nañu gañe tàmm nañ gañe Guinée waaw yaakaar naa ne mën nañ ci génn daal. boo gisee équipe nationale premier match bi. premier match bi bon peut-être que lim nekk premier match en plus suñu joueurs yu bëri yoo xamante ne ñoo doon tàmm jouer jouer wu ñu xëy na looloo tax match bi demee noonu. waaw mu kii mais l'essentiel mooy que gagné nañ daal. waaw coaching bi noo gisee coaching bi. des na waaw bu ma booleeg Aliou nag waaye des na. mais ñun tàmm nañ leen dóor vendredi bu nekk am nañ ko ak ñoom 2006 mi ngi fi woon boobu lañ gënoon taxaw te dóor nañ leen. boobu moo gënoon a fort parce que boobu daa dóor euh, kii trois matcham yëpp génn dafa woon boobu te dóor nañ leen waaw. loo gis est-ce que. est-ce Mhm. jaajëf waay merci Bintou. des supporters du Sénégal hein ou bien. ouais bien sûr on est derrière le Sénégal à fond aujourd'hui. on soutient le Sénégal bien sûr à fond. totalement. c'est comment le nom. mon prénom à moi moi c'est Pierre. et Justine. comment vous voyez l'équipe nationale. Honnêtement, cette année, je pense qu'il va y avoir deux équipes qui peuvent remporter la Cannes. C'est soit le Maroc, soit le Sénégal. Et j'espère de tout cœur que ce sera le Sénégal cette année. Honnêtement, c'était pas mal. Heureusement, il y a la victoire au bout parce que il y a quand même eu un penalty euh, dernière minute, mais euh, je pense qu'ils peuvent mieux faire. Il faut leur laisser un peu de temps et ils monter en puissance. Et là, mon avis, va voir un grand Sénégal aujourd'hui. Vous pouvez pour le Sénégal. 2-0 pour le Sénégal. Pardon Vous êtes de quelle nationalité On est français. On est français. Ouais. On est un peu les Sénégalais. ñoo wér ñëw toog fii nii quoi yaa ma gën a xam ñëw fii jóge Grand ñëw participer di seetaan Sénégal bi quoi mais match moom amul leen lu si wax loolu jàpp gagné instant yi nii jàpp gagné lañ sax am malheureusement Guinée moom waaw Guinée moom malheureusement dañ mënuñu la wax Guinée si lii la wala si lee la jàpp defaral la nga xam instant yi moo loolu mais match dañoo déterminé wu neen Sénégal wax rek wax rek lañ xam wax suñu wax dëgg la wax suñu for mais wax du jëf wax du jëf moo gën a métti nag instant yi te dañ def wax di def instant yii comprendre moom la ñuy def nag instant yii ma xaw a la suñu classement bi am na lu si xaw a def nii tuuti quoi mais ma moom la ñu teg si axe bi jël Diallo sànni ko si latéral bi quoi moo gën quoi ba Koulibaly ñëw léegi ñu soog a peeroo pa aw kii nii Diallo ak kii nii Koulibaly quoi moom si laa gën a gisee quoi classement boobu noonu. kaa coupe bi moom ma ne sax te xel la. te xel la quoi parce que man mënu ma seen départ yi laa la wax ni seen départ seen club ñuy départ ñëpp dañuy ñëw du football naajement mais malheureusement chaque jour ñu laa la wax chaque jour dañuy indi kenn dugal kenn indi kenn dugal kenn indi kenn dugal jëm mais li dëgg du yoon dañuy tegal lu fi nekk quoi ñu jël lu nekk c'est incomparable. yi am est-ce que Sénégal dina am capacité daaneel Guinée bi nga xam ne. lii du dara lii du manquant sax lii bu ñu indi woon Jaraaf wala Linguère yi dañuy defar ak Guinée. Jaraaf wala Linguère bu ñu ko indi woon tey jii dañuy defar ak Guinée Guinée du dara Guinée suñu équipe nawetaan yi sax ñoo ko mën. barki yàlla mais Guinée du dara. coupe de nee na. non Guinée non non kaas sax du ko yóbbu. non non. mais sax ñoo ko gën a yettu waa ñoo ko gën a yitu affaire yi leer laa la wax. saa ñu ne saa dañu am fu ñu séntu muy mondial lañu séntu saa yi nii mais du ay coupe d'Afrique yooyu noonu wóor na yàlla ñu mondial lay séen mais du Coupe d'Afrique parce que yàlla. jaajëf tuubeeg sant waaw xanaa xanaa xanaa kontaan rek ni ma gisee monument bi ak préparation bi maa ngi ñaanal équipe bi daal yal na ko yàlla may ndam 3-0 laa la laa ñaan yal nañu yàlla may ndam 3-0 waaw. boo gisee bi équipe bi. waaw ginnaaw bi ñu fubalee euh, di euh, bi maa ngi dégg gars yi wax. mais sénégalais nañ yokk seen ngëm-ngëm quoi parce que équipe bi ni ma ko gisee équipe bi parce que joueurs yaa ngi ñëw quoi n'est-ce pas ñoom Salif Ciss gars yaa ngi ñëw quoi instant bu bu am li ñu tiit si équipe ñëpp nañ jàppoo doon benn supporter équipe bi incha allah yàlla may ñu andi coupe bi incha pas tiit non tiiruma tiiruma tiiruma non c'est juste que ne xam am confiance sama xel parce que tamit équipe boo ko mënee da ko war a yan lu bëri ah comme lu Cameroun def démb quoi. waaw parce que tam xam même lu dara sax mais xam nga dafa wane exemple boo xamante ne xam nga équipe yu bëri boo xam dañ koy sóoraale waaw équipe boo ko mënee boo xam dañ koy dóor lu bëri. waaw Guinée moom. ko yaa ko mën. waaw ko tamit xam nga yaa ko Guinée moom suñu ah boo xam suñu képp yaa ko <laughs> waaw. ñoom moo xam dañu xaw a naw si benn côté boobu quoi boo waxee ñun ah ñun sénégalais ah xel mi moo ko sonal. ay tëj te xamoo fuñ ne. <laughs> waaw loolu dañuy dañuy xoo. <laughs> maa xam nga mais xam nga affaire yooyu moom boo xamoon affaire affaire kii la rek xam nga suuf affaire yooyu noonu mais Guinée en si plan bépp ñoo leen mën waaw Guinée amul fenn foo xamante ni mën nañ fa jaar ba xam nga ba en bay sax jafe-jafe. waaw ah franchement pare match bi moom xam xam match entraînement rek lañ ko jàppee quoi waaw. waaw mais xam bala nga mën a xam Sénégal dëgg mu génn premier tour yi nga xool waaw. gisee coaching Aliou Cissé. waaw Aliou xam nga. waaw ñu koy critiquer rek si changement dëgg la mais tamit xam nga xam soo am soo am rek lay def quoi soo am lay def xam nga day xool amaana ba xam ku gën xam mu teg ko. waaw mais Sénégal même boo jëloon booyee ndaw yi sax jël leen si xam nga teg leen. ah ñu classé la équipe bi. ñu classé la équipe bi quoi Sénégal xam nañ onze partant yi. waa mais lii moom franchement parler waa dal na suñu xel tuuti quoi waaw dal na suñu xel tuuti. est 2-0 comme d'habitude rek. waaw rek baax na comme d'habitude rek waaw mbokki internet wasaare sport ak lii di Dakar midi toujours ñu ngi fii ci euh, monument de la renaissance fan zone bi nga xam ne mooy abrité en ce moment lii Sénégal yi comme ni ñu ko dundee premier match bi ak Zimbabwe dundaat ko ak euh, kii di euh, Guinée. gis nañ match Zimbabwe bi Sénégal dafa gagné difficilement tey jii premier mi-temps bi xaw a maanaam bi amul dara amul noo ko dundee ak noo koy jàngatee. li ni ma koy jàngatee moom ah man sama xalaat du ma footballeur de mais sama xalaat bu continuer nii moom. non gars yi dañoo nar a parce que man Sénégal gisuma ko sérieusement gisuma ko xaw ma tactique Aliou Cissé bi la xaw ma mais gisuma dara Sénégal Sénégal moom gisuma dara instant bii ne lu muy lii ak cas de Covid yi ak manquant yi est-ce que du loolu moo tax. waaw loolu tamit impacté na ci. Ah. loolu moom impacté na ci parce que boo xoolee millier bi des na trop latéral yi affaire yi moom bal bi dafa dawul. Ah. bal bi dafa dawul parce que boo xoolee match bi sax daa mel ni Guinée ñooñu a bëgg. xaw ma gars leen sous-estimé xaw ma mais Guinée ñoo gën a bëgg bi parce que gars ñu ñu ngi dal suñ kaw ñu ngi fubal mais ñoom daal comme si waaw fubal bi dafa nooy instant bi instant lan nga yaakaar ne Aliou Cissé war na ko mën a def deuxième mi-temps pour match bi mën a changer. waaw ak yi rek gars yi am benn consentement seen biir xam ne ne que instant bii nii Guinée bu ñu doon door du Guinée bi Guinée bi dafa ñëw pour doon ñu barki yàlla Guinée bi dafa ñëw pour doon kon bu kiiwul bu ñu yokkul affaire yi mu wax ak gars yi gars yi am benn cohésion seen biir non boobaa duñ dem faa ñu génnee jikko kii bi jikko gaynde bi wax wax faaw bu génn sinon rek du baax billaahi sino du baax. waaw ginnaaw bi ñu nee Sénégal nag foog ñu wax Guinée Guinée Conakry am benn ay supporters ya nga xam ne ñëw nañ fii si statue de la Renaissance monument bi teewal seen dëkk ñoom lay laaj na lañ jàngatee seen équipe. match bi moom nee na bi moom nee Euh, match bi moom nee na yàlla xam match bi neena na euh, damaa mom euh, moom Guinée gañ parce que Guinéen la bëgguma match bi saa am mais fu nekk ku nekk si day défendre. mënul ñàkk la daal mënul ñàkk yàlla xam na damaa bëgg Guinée gañ mooy ren bi waaw. mais lan nga gisee équipe bi équipe Guinée bi indi na xaal kanam bu bees tàkk tey ah. waaw baax na bu see bi moom baax na Sénégal bi baax na Guinée ñaan yàlla. gën a am ndam bi tey waaw. daal bëggoo Sénégal am ndam tey. bëgg naa tey de mais tey tey de bëgguma tey. waaw bëggoo tey mais doon nga ko bëgg mais tey moom bëggoo. waaw tey moom bëgguma ko. à part Guinée Sénégal ngay supporté. waaw à part Guinée Sénégal lay supporté. waaw parce que euh, mooy pays bi nga xamante ay frères la. pays ami. voilà derby la mais ku nekk day def def défendre drapeau am. waaw. Eh, yàlla ñu ñaar yëpp eh, ñaar yëpp qualifié. loolu la ñuy ñaan. yaa daal ñaan Sénégal ak Guinée waaw. Sénégal jël dam bi waaw. par rapport Guinée Sénégal laa supporté yàlla xam na. waaw. ñu lay bëggee bu wér waaye. seetaan nga match bi bi. waaw waaw waaw seetaan naa ko. lan la jàngatee équipe bee des. lii moom du équipe. waaw. nous sommes des sénégalais mais lii moom gañewul sax euh, Gambie waaw Aliou Cissé na xoolaat ay joueurs yi mu yóbbu kaan na xoolaat équipe affaire yi on des bons joueurs et on n'a une équipe quoi différence bi loolu la avoir des bons des bons joueurs et avoir une bonne équipe c'est, c'est tout à fait waaw loolu la quoi. mais manquant yi dafa bëri trop Covid bi Kalidou Koulibaly Covid bi aussi fédération bi na lijjanti loolu. waaw parce que ñun rek la pro suñuy suñuy suñuy suñuy titulaire ah ñu naan dañoo Covid dañoo lii comprendre nga. fédération na dem lijanti ak kaaf loolu lan fan la ñu teg loolu ba naa bay xool naa dañoo testé positif ñuy absent parce que loolu baaxul si ñun baaxul si ñun si ñoo xam te ne dañoo war a ñëw pour jël coupe loolu baaxul si parce que ñii nii ñii see nii nii nii nii nii mooy loolu. dafa des lu bëri. non lu moo ñu gën a bëgg match bi. déggoo li la Guinée dafa ñëw pour moom bugg si dara match bi am na victoire. ñun nii la ñu am moom moo am victoire day ñëw yàq match bi Guédé day ñëw taxaw yàq ma si ba mu jeex bu niilee sax day génn xam nga mais équipe bi gañe ñun daal ñoo war a pur équipe bi gañewul bu ko gañee tamit dañoo taxale rek billaahi Sénégal ak ak classement bi mu toll ci wàllu FIFA ak gine fu mu toll buñ ko xooloon ci lool ak joueurs yi ñu yor potentiel yi ñu am premier mi-temps waruñu tàgg waruñu warul jeex sa tàggali ko ñëw Guinée bu ko tegee ci yoon war na yàlla Aliou Cissé moom ah moom moom moom on n'a pas un bon animateur équipe da ngay am animateur ana ana Pa Aliou Ndiaye ay animateur la la moo tax jëlu ko xam nga ana Kouly Diop xaw ma naan Pape Kouly Diop ay animateur lañ ñu kan mooy suñu animateur ñun instant bi amuñu ko amuñu ko amuñu animateur Issa Gana Gueye récupérateur la amuñu animateur kuy séddale amuñu ko li des bëri na daal frère waaw équipe bi moom des na des na. Assane. tey tey déception nga am wala. nga ne. déception nga am wala déception. tey moom. alhamdulilah donc euh, jëm nañ ba def 3-0 prochain match yàlla baax na soobee yàlla dina baax. soo gisee équipe bi. équipe bi euh, dama manqué ko ainsi moom rek dugal léegi la xam quoi waaw. ak ma ak manquant yi am Covid 19 beeg yooyu noonu. boobu euh, moom waaw boobu moom. tolof tolof am na boobu mais incha allah Aliou dina gérer loolu et am nañ confiance ci Aliou gëm nga ni gëm nga ni prochain match dañuy gagné. prochain match waaw am naa confiance boobu noonu. waaw war nañ ko am tamit. parce ni ñuy joué tamit tey moom. fi laa mu prochain match nañ am but quoi avant avant premier mi-temps sax war am but. ok. nga seetaan match contre Zimbabwe Sénégal gagné difficilement tey Sénégal ñun noo noo jàngatee loolu. ah franchement nag franchement parler quoi xam nga man dëggantaan amul amul amul niveau quoi manque de niveau rek ko mën a waxee quoi manque de niveau ndax Sénégal instant yii gis amul benn preuve boo xam ne daf mu keneen ak keneen ak mooy loolu quoi gars ay joueurs la ñu am mais amuñu amuñu équipe franchement parler amuñu équipe quoi. mais noo jàpp noo def. ko waaw Sénégal mënul mënul gagné mënul gagné avec la manière. waaw mais ça franchement c'est pitoyable quoi xam nga c'est pitoyable dëggantaan xam nga ndax effort yi état bi xam nga soo gisee ak mobilisation bi nii foo dem dem ay fan zone foo dem am fan zone gars yi génn mais te gars yi chaque jour ñu décevoir ñu quoi donc man gëm naa ne man gëm naa ne affaire bi mooy loolu quoi. am na lu des quoi am na lu des carrément amul sa gëm naa loolu moom am na lu des franchement parler nag. côté tactique de jeu tactique de jeu dëggantaan c'est que Sénégal seen seen football moo amul technique quoi technique amu ko technique gars ay kàjj kàjj rek comme équipe nawetaan quoi franchement. Ah. barke yàlla comme équipe nawetaan comme équipe nawetaan mooy loolu. Aliou Cissé noo ko jàppale. non Aliou Cissé nag Aliou Cissé instant ku nekk ñuy wax ku nekk ñuy wax quoi mais dëggantaan mooy def mooy def li muy def de mais joueurs yi si boppam ñoo war a wane preuve si biir si biir terrain bi quoi bien vrai que coach si biir lay nekk mais ñoom ñoo war a wane preuve si biir terrain bi. wane preuve quoi pour wane football bu set pour mën a gagner joueur yi kese ñoo si des dañ wane football bu set pour gagner quoi amul parce que ay professionnel lañ nekkul fii football fii la football waaw mbokk internet bu Wassare euh, Sport ak euh, lii di Dakar Midi ñu ngi fii ci euh, monument de la Renaissance ñu doon seetaan Sénégal waaw waaw déception parce que normalement match bi ñoo ko waroon gagner ñëpp xam na nañ ko Sénégal du moromu kenn ñun da nga war a gëm suñu bopp jouer comprendre pas ñu ñëw fii di xam nga quatre-vingt-dix la dafa yomb ñëwal dugal bii mu dugg moo gën wala noo gisee équipe bi équipe bi noo gis dafa des dafa des naawet na dafa des trop sax mais da nga war a góorgóorlu Sénégal da nga mun football trop mais da nga du ñu dul góorgóorlu bu ñu góorgóorloo rek coupe bi dañ koy jël waxuma bii ne coupe du monde dañ koy jël coupe du monde si boppam koy jël mais Sénégal dañoo war a góorgóorlu nekk fii di dof dof lu nañu juyee dañu juyee mun nañu mun nañu am nañ ko dèjà parce parce que mooy yaa ngi fii lépp a ngi fii lépp a ngi fii dèjà fit bi am na fii gabarit bi am na fii condition am na fii mais football bay des war a góorgóorlu juyee bu baax loolu la bu buñ ko juyee rek coupe du monde bi la ñuy jël waxuma coupe d'Afrique de coupe du monde bi la ñuy jël sport ak lii di Dakar bi di gis ngeen ni tey fii lañ nekkoon si monument de la Renaissance seetaan na donc match bi ak ñii di population bi euh, ginnaaw bi Sénégal euh, doore Zimbabwe euh, premier match ñu seetaan ko fii tamit tey jii Sénégal def match ñun mu nekk ba la nga xam ne ñii jàppee nañ ko déception ñële jàppee nañ ko loo xam ne wax dëgg naa la Sénégal waroon naa def meilleur meilleur meilleur match gagné kii di Guinée mais mu mujjee ko gagné am 4 points Sénégal daal dese na ko benn match muy contre kii di Malawi du ko gagné euh, fekk Guinée ñu gagné ko fële contre Zimbabwe moom mooy jël première mais du nii lee Guinée gagné kële di Zimbabwe euh, mooy jël euh, lii di première place bi moom mu jël deuxième place bi. mais lu munti am rek tey day dépendre tamit aussi tamit si match Zimbabwe ak kii di Malawi Zimbabwe tamit du gagné Malawi day relancé wu. Malawi tamit du gagné kii di Zimbabwe day relancé wu day am benn sens pour qualifier troisième journée bi nekk benn affaire ba nga xam ne dafa nar a nekk tournant si pour pour Sénégal waaw sénégalais nag ñu bëri jàngat nañ match boobu noonu ma jox sama kàddu gi kii sama confrère muy euh, Mamadou Sène seetaan match bi ak euh, ak population bi ak sénégalais fii si monument de moom na la ko jàngatee. waaw comme ni ko waxee Omar l' essentiel pour man l' a été fait parce que tey jii nii boo Sénégal ak kii di ñoom ñaar ñëpp maanaam football ne ça dépend tamit il faut que ñu wax tamit dafa ay réalité yoo xam ne am si bi mooy maanaam heure boo xam ne moom la ñu joué si terrain bi parce que boo xoolee gis nga Sénégal fu nekk nu mu fu ñu taxawee tànga baa ngi ñu ngi football euh, ne moo gën a tàng fii Sénégal donc euh, loolu yëpp da si boole moo tax ni BMT mooy absence yu yoo xamante ni am nañ ko pour man l' essentiel la ATP on a 4 points maintenant le Sénégal est déjà qualifié et donc pour man loolu moo nekkoon essentiel bi maintenant lan mos des mooy est ce que Sénégal dina jël P ou 2 mais pour man euh, P ou 2 yëpp c' la même chose parce que ça dépend ci ban équipe nga ci ban da peut être mun nga des ci troisième xam ne moo nekk groupe B mais boo demee quart de finale peut être mun ko calculer peut-être lii nii moo gën si ñun et j'espère que bien incha allah match bi di ñëw euh, je crois que euh, euh, samedi jour quatre jours incha allah Sénégal dina daje kii di Malawi j'espère que dina dóor Malawi incha allah. ok comme ni nga ko waxee mais dama lay xaw a rectifier tuuti rek muy qualification bi Sénégal tey jii am na 4 points Guinée am na 4 points Zimbabwe du dóoree lii di Mali du dóoree lii di Malawi. m'excuse du dooree Malawi day am tamit euh, lii di 3 points Malawi du dooree Zimbabwe day am points c'est-à-dire dernier match bi troisième match bi na nekk euh, luy définir ñu war a qualifier ci poule bi. lu tax may la euh, Sénégal bu man Sénégal qualifié na point mooy je crois bien que Malawi ne peut pas battre le Sénégal c'est impossible ba boo gisee maanaam match yi nu muy demee nii mais football nag kenn xamul mais boo gisee tey jii day leen ni kii di Zimbabwe Guinée mun Guinée Guinée ne va pas battre Zimbabwe loolu Euh, man yaakaar naa ne Guinée ak absence Sénégal bi am yëpp bu ñëwee dafa waroon si kaw Sénégal pour man de Guinée tey jii nii victoire la waroon génne si kaw Sénégal boo gisee maanaam tey jii yu bëri am yëpp. waaw comme ni nga ko waxee absence yooyu noonu xaw na handicapé tuuti Lions yi doo dégg doo gisee kii di Koulibaly ak kii di euh, euh, Fodé Ballo-Touré ak Idrissa Gana Gueye nekk ay pièces maîtresses équipe nationale. waroon na ñëw euh, football match bi mujjee ñu ko football Guinée indi équipe tibam ay Isaaxa Sakho ak euh, Isaaxa ak ak kii kii di Naby Keita football. normalement ñoom ñoo waroon gagné ki match bi mais Sénégal tamit kenn demul mu des wane na boppam ñu xaar contre Malawi lan lay indiwaat. incha allah j' espère que bien que fii ak 4 euh, jours incha allah dinañ yeneen joueurs yu bëri boo gisee euh, kii di Bamba Dieng euh, peut être moom tamit ñëw na kii di Memphis Mendy moom tamit incha allah gëm naa bi ñëw tamit dina football attendant kii di Gana Gueye peut être tamit fii ak 10 jours wala maximum une semaine peut être daal di qualifié incha allah. ok ñu ñaan yàlla rek ñaanandoo ak sénégalais yëpp ñu euh, suñu manquant yi mën a ñëw contre Malawi yi ñu mën a am score bu mag qualifié lii di euh, huitième de finale jël pays suñu poule. waaw comme ni ñu falal di defee rek euh, wasaare sport ak Dakar Midi dina dund ak yéen ñëpp Coupe d'Afrique ba mu muy jeex ak fii ci monument de la renaissance si fan zone bi nga xam ne suñu confrère RTS yi ñoo ko organisé woon di leen jox dig daje ba beneen yoon jaajëf.